asubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani waaw ñi doon laaj eh, laaj ismu yaa waduudu xam ne ismu waduud moom boole rek moo tax ñu koy def ndax boo xoolee mahabba rekk muy ñaari way dencante wala ñu bëggante bañ a rëccante ismu waduud moo ci gaaw muy yaa waduudu ndax yaa waduudu vingt boo ko bindee vingt ñaar fukki yoon rek nga koy bind boole kook ah, boole kook tuuti xorom waaw di ko faral di raayoo ma da ngay am bayral lool boo ko sikkaree nag ñaata 832 832 moo jàpp wa alxaytu alayka mahabbatan minni muy moom ngay sikkar ismu wadood yaa wadood yaa wadood 832 boo ko tarbiyoo 7 jours waaw ku la gis daf lay bëgg maanaam bayra goo xam ne ne moom pour mbëggeel la waaye nag bu fekkee da nga bëgg a jubóole ay nit dangay bëgg a jubóole ay nit da bind yaa wadoodu yaa wadoodu 20 yaa badooxu 20 da ngay bind wadoodu 20 badooxu 20 bind nit turu nit ki yaa xam ku man di doon bu dee jigéen la nga bind ko muy ñett nga xam ne mooy taxaw limu 60 soixante boobu muy taxaw nag yow ki nga ki ki nga ki ngay nopp wala ki ngay bëgg moom nga koy jox mu naan tey bu fekkee góor moo ñëw si yow bëgg ja bëgg jigéen danga koy bind vingt yaa wadoodu yaa bëdduuxu bëdduuxu mooy rawxaanu wadoodu waaw boo faree nga bind turu ndaw si ki koy naan yow yow mi ñëw sa tur du bokk de ki nga xam ne nag moom ñëwut ki nga ki nga bëgg ki bëgg daal nga koy jox mu naan ko bu ko naanee ba ilaa mi diin kenn mën leen a tàqale ba tey waduudu day maye wërsëg waaw waduudu day maye wërsëg day maye bayal dangay ngay bind yaa waduudu fii jiidiha yaa waduudu fii jiidiha téeméeri yoon nga boole ko sukkar ak xorom polle ak parfum saa boo xëyee day di siraayu moom moom dangay am xaalis da am wërsëg